téléspectateurs yi ñu santaat yàlla ngeen baalati nu de baal leen rek ah ñu ngi jéggulu bu baax ñu ñëw ci émission pencum làmb ñuy ziar ñëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi bi nu yàlla mayee ñu mën a dellu siwaat waxtu wi nag daana fekk normalement ñu war a commencé ah surtout rawatina sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi Europe ah di nu seetaan ñu leen di nuyu di nuyu doomu Sénégal yëpp yàlla defal leen jàmm ñu nuyu it waa réew mi ñu nuyu sunu kilifa diine yi ah yàlla may leen jàmm ñu ngi nekk ci waajal safar gi ah safar gi dugg nañ ci ñu ngi waajal màggal bu ñu jógee ci màggal dem ci gàmm loolu répp di ñaan yoo xamante ñu ngi sàkk sunu borom daal ñaan yi réew mi yëpp séddoo ko ñu bokk ak doomi réew mi ñin nga xam ne ñu ngi bitim réew ñoom ñëpp ñu ziar leen ñu ziar sunu waajur cheikh bu moom cheikh Sidil Maxtaar Kunta ñu ziar ko bu baax ziar njabootu cheikh bu naama Kunta yëpp njabootu cheikh Sidil Maxtaar Kunta ñu ngi leen di ziar di ziar njabootu alaaji Malick si sëriñ Babacar moom sëriñ Mansour di ziar bu baax a baax a baax sëñ Muntaxa gis nañu waaj taay gi ci yàlla yóbboog jàmm Mbàkke loo fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñu ziar njabootu maam Abdallah Niass yëpp ziar njabootu Ceneba Seck di ziar bu baax njabootu Baye Laay njabootu maam Cheikh Oumar Fouti Taal di ñaan sunu borom yàlla na def ci réew mi jàmm di ziar bu baax a baax a baax njabootu kër chrétien yi tamit ñu leen di ziar bu baax ndaxte ñoom it sunuy mbokk lañu wax naa leen ko bis bu jot nga dugg ci kër fekk ñu bokk ndey ak baay te bokkuñu diine loolu nag mooy réew mi suñu digganteeg catholique ak jullit fii ci réew mi dialogue islamo chrétien lañ koy wax bu ko kenn yàq dañ ci jàpp bu baax ndaxte ay mbokk lañu te ñoo lépp waaw loolu nan nan ko ñëpp a xam diggante catholique ak jullit werante gi jaru ko fi werante day yàq day yàq ay xol di yàq ay xel te loolu daara jaru ko am na nu réew mi mel noon lanu nu musa mel nan ko banoonu nit nag bu waree ñaan pour jàmm am na ko ñaanal ñëpp waaye bu daal werante baaxut rawatina ci réew mu mel ni réewum Sénégal musunoo am kàddu yu werante ci sunu biir musu fi am président bi fi njëkk am président catholique la boo demee Touba mu doon seen doom mu demee Tivaouane doon seen doom fu mu dem noonu la gis nga kal yi sax lu ci bari moo ko fi def diggante alpulaar ak séeréer ah fii lay taxaw ni alpulaar yi samay jaam lañu ñëpp nangu kon sunu diggante jullit ak catholique bu benn werante am ñi war a waxtaane jàmm nañu waxtaane jàmm loolu mooy li nga xam moom la ñuy ñaan ci réew mi yàlla na réew mi am jàmm ñu ñaanal ko le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay yàlla na la yàlla may jàmm yàlla jàppale la taxawu la yéene gi nga am ci réew mi yàlla na ko yàlla sottil am nañu yaakaar ci yow ndaw ñaa ngi toog di xaar ñëpp a ngi toog di xaar yal na la yàlla taxaw jaarale leen ci yoon yow ak sa premier ministre ak sa gouvernement jaarale leen ci yoon woo xamante ne nii ah, réew mi dina ci gis boppam loolu la ñuy ñaan tey jii nag mbokk yi dañuy dellu si waat rek ci émission bi di gërëm Balla Gaye semaine passée moo fi nekkoon tey jii nag waxtaan la ñuy indi dinañ waxtaane lépp loo xam ne aju na ci làmb dinañ waxtaan ci Balla gay moomu convocation bi yoon la wala du yoon ndax teg nañ ko ci droit wala teguñu ko ci droit di daan waxtaan ci Bira Sène mi nekk président CNG te wax ji bari ci moom ah na Bira dem bu Bira dem am na ñoo xamante ne ni ñu ngi ciy wax loolu tamit débat la ah dem nañu ba dégg nañu Bakary mu ne Alaaji Bekaay war naa nekk président CNG yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee dinañ waxtaanee it CLAF Makan Mbeng encore ñu encouragé la ñu ñaanal la yoon wi sa bàyyi jël. ba def li nga xam ni moom la def ci làmb nga ñëw tey def claf defaat nañu beneen poule mu di poule A ñuy séentu beneen poule ñëw loolu lépp bu soobee yàlla ñu ngi ci te dinañ ci jàpp bu baax mbokk yi dinañ ñëw ci léppi làmb alburaax dañ koo bàyyee terrain bi de trop les promoteurs ay Fallou Ndiaye danoo gënoon a yëngu promoteurs yu bëri yëngu woon noonu mais fi ñu toll da ngeen a bàyyi terrain bi ak alburaax lan la jàmbaar tëgg combat bu toll ni Modou ak Siteu seen yëngu bariwul bariwul dara da ngeen a noppi lool te combat boobu mooy combat royal mooy combat bi gaa yi gën a yaakaar fii ñu toll ci làmb waaw ku koy bëri ñu ne Modou Lo ku muy bëril Siteu loolu waroon na toll foo xam ne heure bii kenn waxatu ko waaw te bu doon alburaax la kon wax ji pare na kon ñu def ci promotion bu mag a mag a mag a mag ñun nag ñu ngi taxaw bëgg leen a jàppale bu baax a baax baax ci loolu parce que du combat caaxaan waaw ndaxte Modou dafa daan ñaari xale war a jëlaat beneen ñetteelu xale ndax mën na def jamais deux cent trois wala déet loolu dañ ciy war a waxtaan dinañ waxtaan ci saison bi les interdits am na yoo xam ne dañ koy tere ci làmb ku ko def lu la ci war a topp Babacar a fi ñu def tuuti bilan ci làmb waxtaan ak yéen yaakaar naa ni Modou Mbaye tey loolu mooy loolu mooy loolu mooy sommaire bi loolu mooy sommaire bi macha allah ci biir làmb HBK sommaire bi am na solo yaakaar naa ne dañuy daal di dugg rek directement ci développement bi comme ni nga ko waxee ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax làmb moom yaakaar naa moom ak coow a ànd. Mhm. fi ñuy démarrer mooy Balla gay numéro de ak CNG. HBK dafa posé question à savoir est-ce que waroon nañ convoqué convoqué Balla Gaye man fi may tàmbalee mooy sama plateau la xewee woon. Mhm. man maa dirigé woon débat bi jour bi Balla Gaye di wax loolu.